alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah. abonné leen ci seen chaîne MALBN bu leen fàtte bës cloche bi ngir ngen mën a am bépp xibaar bu aju ci wàllu faydu bi. alhamdulilah. nuhanni'ukum wa nuhanni'u anfusana jami'an. xuduuri haaza ash-shahri al-mubaarak.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 wa radiyallahu taala an ashaabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim ya himmata sheikh yahduru lana bi hadha al-mahdari waltaatufi bi nadratin taati lana bi zafari mu ne buur mu ne wa in kazabuka nam weddi nañ wedd weddi nañ la fa qul waxal li ñeel ma amali jëf sama walakum walakum ñeel leen amalukum jëf seen de su fekkee dañ laa weddi itam nag ku nekk rek nag xam ne jëfam danañ ko ko fay seen jëfa ngi nii man sama jëfa ngi nii antum yéen bari una way dañ ngeen mimma ahmalo ci li may def wa ana man bari un aji dañ laa mi ma taamaloon ci li ngeen def di wax bi jeex noonu la ko yàlla waxee mooy aayeg lakum di la abudu ma taabuduna wala antum abiduna ma abud wala ana abidun ma abadtum wala antum abiduna ma abudu diin mooy loolu rek loolu la yàlla ba ba ba nga xamee ne parce que am na ñoo xam ne euh, sawaun alayhim a anzartahum am lam am lam tunzirhum laa yuminuun mu nga waar leen ak nga bañ leen a waar yëpp moo yem ci ñoom munoo fexe fexe fexe bañ nangu kon nag boobu da ngay noppalu sa bopp da ngay noppal sa bopp rek de mu ne buur mu ne wa in kazabuuka ndem wedd nañ la foqul waxal yow muhammad lii ñeel na ma man muhammad amali sama jëf wala kum ñeel na leen amalakum seeni jëf de te ku nekk danañ ko fay jëfam antum yéen yéefari màkka yi bari woon a way dañ ngeen mi ma amalu ci li may def yéen d'accordu leen ak man man tamit li ñu wax pare yi tamit de wa wa ana aji dañ laa mi ma taamaloon la ngeen di def de wa minhum aji nekk la e, wa minhum man yastamiuna lu ko wasal wàcc na ci mbooloo mu ci Quraysh Abu Jaal abu abu sufiyaan ak utbatu ak eh, ak ak shaybatu dañ doon wax naan ñeneen ndax yéen a ngi dégg li muhammad di wax ñi ñeen ñi ne ñi ne ñoom dégguñ dara buur mu ne wa minhum aji nekk la ci yow man yestamew naka dana mu déglu ilayka jëm ci yow muhammad afa anta ndax dana afa anta ndax yow tusmew dana dégg dana déggu ak summa aji tëx walaw kaanu donte nekko walaw kaanu nekkuñ woon laa yàq donte nekkoon nañu sax di dégg sax laa yàqaloon duñu am xel de duñu settantalu de maanaam ñoom daal mën nañoo dégg nii waaye li ñuy dégg munuñ cee wax munuñ cee xam dara dara dara de wa minhum aji nekk la ci ñoom ku ku faaru Quraysh yéefaru Quraysh man yanzuru ko dana mu xool ileeka jëm ci yow am na ñoo xam ne ñu ngi jàkkaarloo yow te fekk gisuñ la sax afa anta ndax danga nga ndax yow te di dana nga jubal alxum yow aji silmaxa de walaw kaanu donte nekkoon nañ di gis laayib laay di xool da laayib suru na gisuñ la de loolu mooy misaal ak kéefar summun bukmun umyun foofu laa yàqilun foofu laa yarjoona foofu laa laa laa de bam jeex maanaam ñoom daal gumma nañ tux tëx lañ loo lañ mën nañoo dëkk ak mën nañoo dëkk ak koo xam ne mu def leen jëriñ waaye foofu lañ koy romb baxaala ko de ba ci ba ci zaahir gi nga xam ne mën nañoo nekk ak ay wàllu yàlla sax dund ak moom ay at ba wàllu yàlla bi génn àddina baleen fi te tey lañ ko gën a bañ de yal nañ ci yàlla musal inna allaha naka yàlla laa yazlimu du du tooñal naa sa nit ñi cheyan dara de yàlla tooñu tooñu tooñu benn mbindeefam li fi nekk eh, an naa sa nit ñi yazlimuuna way tooñ na mu walakin an naa sa ñoom nit ñi daal an an eh, yazlimuuna way tooñ leen anfusahum way bopp seen de ñoom daal ñoo tooñ seen bopp kenn it kenn de waskur jàngatal yow ma naxsuruhum di bés ba def na fang leen ñëpp ci dekk na dafa mel ni sax ñoom lam yelbusu nekkuñ woon ci àddina bi wala ci bàmmeel bi illaa saata lu dul benn waxtara min naxaarin ci bëccëg waxtu bi yàlla taxawalee pang ma nag dañ naan waa ñun moom àddina dafa mel ni daal benn une de temps lañ fa def loolu lañ wax ndax tiitaange wala ñu ne sax bàmmeel bi ñun daal benn benn une de rek lañ fa def ndax tiitaange de yataarafuna na ngay xam du nag baynahum diggante seen ku nekk nag di jéem a mbokkam pour mu daje moom ndax tiit rek buur mu ne xat xasira perte na alladina ña nga xam ne kazzabu weddi woon nañ bi liqaay laay ci daje yàlla ci dekki ñi nga xam ne nag ñoom dañ doon wax naan alladina laa yarjun liqaana war waradu xayaatu xayaati dunia ma am nu ñi nga xam ne ñoom dañoo gërëmoon yaakaar na duñ dajeek yàlla ci dekki ñi gërëm loolu noonu topp seen bànneexu àddina rek mu ne ñooñu perte nañ de wa maa kaanu nekkuñ woon muhtadiina di way jub de ñoon jubuñ wa immaa nuriyannaka def na wan leen baadu ladina lenn naana naiduhum loo xam ne préparal nañ leen ko de yàlla itam mu commencé leen wal nag loo xam ne nañ leen ko préparal ci mbugal aw taw aw na taw fayannaka wala ñu fàttaat leen sax ak ñi njëkk balaa ni leen ñu mbugal ñoom dañuy am eh, dee ci kaw dee la ñuy dee yal nañ ci yàlla musal mun a fa marjoohum delluwaay seen ilay naa jëm si ñun wa su wa eh, eh, sumallaahu topp yàlla shahidun aji fekkee la mu lépp ala maa yafaaluuna ca la ngeen doon def de mooy weddi geeg fenloo geeg ak weddi gi yëpp su boobaa nag mbugal bu metti mu ngi leen di xaar de wali kulli ummatin aji nekk la bépp nekk la ñeexal bépp xeet rasulun ak ndaw ak messager fa ida jaa nem dikk na rasuluhum seen messager bi sab seen profet bi xuddiya atteef bay noom diggante seen bil xistin ci maandu yoon xeet gu mas a ñëw rek yàlla indi na ci ñoom ab yonantu boo xam ne mooy àtte ci ñoom seen diggante ci maandu yàlla ko defee noonu waaye su fekkee dañoo wedd ñooñu nag waxum ñoom yonantu yooyu laa yus la mun a tooñuñ kenn rek ñoom duñ dëgg rek la ñuy àtte rek wa yaquluuna da ngay wax naan mataa haazal wax du mën a waaj dëxal bi kañ la in kuntum dem nekk ngeen saadiqiin way dëggal de xul waxal yow yonantu bi sallallahu alayhi laa am li ko am ti mali si ñeel sama bopp daran ak lor goo xam ne dinaa leen ko jañal munuma munuma leen a défendre ci dara wala nafxan du càggeen ak jëriñ munuma leen a jëriñ ci dara illaa ma sha allah ndara la soob na yàlla de lu yàlla dogal daal mën naa koo def waaye lu yàlla dogalu ci man munuma ci yéen dara de li kulli ummatin aji nekk la ñëpp aji nekk la ñeel bépp xeet ajalun ak dig buñ xam bu jóg tey rek ñëpp dee mu xalag leen isa jaa nem dikk na ajaluhum dig seen fala yastaqiruuna déefu yéexal leen ci dara saaxatan benn waxtu benn ida de temps duñ ko romb wala yastaq yastaqdimuuna itam duñ jiital benn ida de temps benn une heure de temps aussi de muhammad sallallahu alayhi wa araaytum ndax xanaa gisu leen in ataakum ne ndem dikkal in taatum bam dikkal ne leen azaabuhu mbugalam bayaatan te digg guddi aw naharan wala ci digg bëccëg maasa ana lan yastaajilu ngeen yàkkamti minu ci mbugal mii de dañ doon dañ doon wax naan wala lu tax yàlla gaawaleeg ñun sarra istijaalahum lu tax yàlla gaawee gaawul mbugal ko ci ñun mu ne ba leen mbugal ma dikkalee na ci digg guddi wala digg bëccëg danañ xam ne yàkkamti baaxut de yastaajilu di gaaw ah, ci minu ci ci mbugal mi al mujrimuuna way bokkaale yàlla yi de asumma foofa isa ma waqaa ba tàbbeek ci ñoom amantum ñu gëm bii ci yow waxtu bu loolu xewee nag moom lu ñuy dof yëpp ak li ñuy sàggan yëpp danañ nangu de ñu ngi naan aal aana léegi nii nag ñoom gëm nañ de waqat kuntum te nekkoon nañ tastaajilu na di yàkkamti bii ci mbugal moomu de ngir yëj ji loola rek ngir wedd la su summa qiila topp wax lilladina ñee ne nga xam ne zalamu tooñ leen tooñ nañu zuuqu mos leen azaabal xuldi mbugalam ak sax hal tujzaw na ndax def na fay leen illaa maa kuntum dara li ngeen li ngeen nekkoon ak teg si bun di ko rek defuñ leen dara lu ngeen li ngeen doon def rek leen di fay rek de yanañ ci yàlla musal bi wayastanbi'unaka danañu wax danañu xibaar leen axaqu kan moo gën a xëy huwa moom ci dem préparé woon ci mbugal leen ak dekkil leen xul waxal yow muhammad est-ce que waaw waaw wa sama borom moom moo gën a yee ci loolu moo ko mën de innahu na ko moom la xaqun aji xee la moom borom bi wa maa antum te yéen moo bi mu'jiziina déer ngi yéen ngeen di way lott di di di romb lii rek kenn mënta kenn mënu koo romb rek walaw anna kulli walaw anna li kulli nafsin zalamat maa fil ardi lu taawtoon nag bu fekkoon na benn bakkan tooñ na ci kaw suuf ci ci ci jël mboolem alali laftadat du romb mukk bi ci mbugal moomu ak loo mënti dam def ci bë ci bàkkaar itam dóora ci yàlla rek wa asaru te nañ te itam na daama tan rëccu rek lamma raaw bañ gisee alazabu mbugal ma wa quddee tan yàtteef baynahum diggante seen bil xis ci maadu wahum ñoom la laa a defu tooñ leen ci kenn duñ tooñ kenn de ñooñ safara buñ diggee safara yanuñ ci yàlla musal dañuy rëccu rëcc ak dappet rëccu nag dafa am ñeenti rëccu ñeenti rëccu moo am rëccu benn bés rëccum at rëccu giiru din giiru dund ak rëccum dappet de rëccum benn bés mooy koo xam ne xëy na war a tukki fàttee ndékki masalan wala mu fàtte lekk ba mu demee ba ci digg yoon ba euh, euh, xiif dab ko fa wala ba mu àggee xiif dafa gisul lu mu lekk mu naa man su ma yëgoon rek daal di ndekki man avant may ñëw loolu paase na benn yoon dootu ko dalati dans dafay dafay dafay mbébét naan su ma xamoon teel a lekk balaa maa génn boobu rëcc bu ndaw la mooy rëcc benn fan rëccum at nag mooy koo xam ne dangaa tardé ji bàyyi ba asamaan si taw ba taw bi bëri nga soog a ji doo am ngóobeef bu baax wala sax sa tool ba du naat kooku nag at moomu dafay rëccu naa woon su ma yëgoon teel koo def waaye at bii di ñëw incha dinaa teele ji rëcc ak diir dund nag moom maanaam koo xam dafay rëccu giiru dundam mooy koo xam dafa takk dafa takk jabar ju bon yaa nañ ci yàlla musal soxna su bon moom noom giiru dundam daf koy rëccu rek na am na ñoo xam ne seeni jabar yu bon yooyu nattu la ci ñoom duñ ko mën a fase te itam duñ mën a indi beneen teg ci itam yaa nañ ci yàlla musal de rëccum dappet nag mooy koo xam mooy ñoo xam ne nag wala koo xam ne tàbbi na safara de ñooy ñooy ñooy rëccu ba faw ndax foofu moom amul génn jeex na tàkk yooyu yëpp yàlla ci yàlla musal de alaa dama ne inna lillaahi nekk la ñeel yàlla maa fi samaawaati la nekk na ci asamaani juróom-ñaar wal ardi ak suufi juróom-ñaar alaa dama ne inna waxdallaahi naka dëggalal yàlla xaqun dëgg la de li yàlla wax ne dana am dana am de walakin aksarum gën li ci gën caa bëri ci ñoom nag ñoom laa yàlla mun a xamuñ loolu lu gën a bëri ci ñoom xamuñ loolu de huwa moom buur yux yii dana mu dundal ku ko seeb ku ko soob wa yu muytu itam dana mu rey ko soob de wa turjaxoona def na delloo ñu ñun ñëpp ilay jëm ci moom de yaa ayyuhan naasu ee yéen ñin ñi xat jaa atkum dikkal na leen mawizatun ak waare min ko mu bàyyeekoo ci borom bi de yéen nit ñi alquran a ngi nii yàlla ngi melal alquran ne waare la mu jëm ci mbooleem nit ñi ci àddina ak àllaaxira ku ko topp mucc ku ko mooy ku ko ku ko mooy itam alaku de wa shifaaun tamuy tamuy saafara itam lima fi suduri la nekk na ci dënn yi de mu wér lool sax bu ne wa hudan tamuy njub wa rahmatan tamuy yërmande lil muminina ñeel na way gëm nañ yàlla de ñi nga xam ne gëm nañ yàlla de gis nga aaye ji tënk na shariatu tënk na tariqatu tënk na xaqiqatu de ndax jaa yaa ayyuhan naasu qad jaatkum mawizatun min rabbikum sharia ngoog wa shifaaun lima fi suduri tariqa ngoog wa hudan wa rahmatu lil xaqiqa ngoog de loolu yëpp nag bu dajee nag ku yàlla dimbale ba bokk ci xul waxal yow muhammad bi fadlillaahi ci ngëneel ak yàlla ci lislaam gi wa bi rahmatihi ak ci alquraanam gii fa bi ci lii nii ci loolu wala ci lii nii fal nañ bëggee nañ na nañ bëggee lool de huwa moom xayrun moo gën mi maayaj maxoona te lépp luñ dajale de te muy dëgg bëggee alquraan gi de bëggee islaam gi moo gën leneen lu ñuy bëggee lu dul loolu de alhamdulilah kon ñu ngi sant yàlla ci loolu de moo tax xeetu yonent bi nañ bëggee lislaam ak yërmaande yàlla gi alquran ku yàlla dimbale nga topp ko rek yow moom yow ci bëgg rek ngay nekk rek nit ñi nag ci xéewal yi dañ ci am ay xaaj am na ñoo xam ne danañ kontaan ci xéewal gi leen yàlla xéewal ndax danañ ko feesal danañ ko feesal lool ak seen i bànneex ak bànneexu bakkan am maanaam na ñoo xam noonu lañ koy feete noonu lañ koy bégalee am ci ñoo xam ne nag xéewal gi leen yàlla xéewal muy xam-xam ak may ak lu mu ci mën a doon yaa ngi dégg danañ ko feetal ci e, topp yàlla itam ak gëm ko ak doyloo yàlla rek am na am na si ñoo xam ne itam ñoo xam ne ñoom daanaka ñi leen yàlla wërsëgal ci xéewal duñ ko xool sax ba di ko gë ba di ko ba di ko bëggee de ni ki waa banu israila toujours yàlla mu ngi leen wax ne uskuru ni'mati ti an'amtu alaykum waxtu bu nekk ñi leen di fàttali te loolu lu la yàlla defal la jarut fàttali ndax dofoo ji ne jàpp la de kon yaa naa naasu yéen nit ñi qad jaatkum dikkal na mu leen maw'izatun alquran muy ko mu bàyyeekoo seen borom wa shifaa'un muy saafara itam lima fi suduri lépp lu nekk ci dënn wi ba nga mucc ci soxot ak bon ak sikk ak lépp wa hudan tamiy njub wa rahmatan tamiy yërmande lil muminina ñaal na way gëm nañ yàlla kul waxal yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi fadlillahi ci ngeneen yàlla ci lislaam wa bi rahmatihi ak ci yërmandeem ci alquran fa bi zalika ci loolu fal yafraxu bégee fal yafraxu bégee leen loo de moom alquran googu wala lislaam googu ñoom ñëpp xayrun moo gën min maaj moo na ca la danañu dajale ko de allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim alhamdulillah nuhanniukum wa nuhanniu anfusana jamian xululi hada alshahr almubarak shahr ramadan alladi unzila fihi alquran aadama allah alayna wa nahnu ala sirat almustaqim Malben moo leen di ñaanal weeru kooru jàmm